Maama dafay yàgg rek a ñu rendre compte waaye nag li ambade sala juróom-ñaari saas yi kenn warul leen a respecté ndax réew mi ñu respecté wuñu kenn Ousmane Sonko ne man ko ma respecté wul du la respecté kon nag moo tax awuma benn respect juróom-ñaari saas yi nga xam ne ñoo nekk conseil constitutionnel ndax nag ay nit rek lañu ay nit yu lekk ceebu jën ak a naan ataaya Ousmane Sonko tuumal ne leen lu jëm ci wàllum haute trahison Déthié Fall nee na juróom-ñaari saas yi nga xam ne ñoo nekk conseil constitutionnel jamono ji ñoo bëgg dugal Sénégal ci ak bëccëxoo ci ak giraawaale Abbas Fall daan na yàq musi ba ak mbile ngan Macky Sall nee na réew mi ko Khalifa Ababacar Sall nee na ay at yu bare bari mu ngi nii Macky Sall di def lu neex ci réew te nag jaay doole gi nga xam ne moom la Macky Sall nekk ci réew mi dafa war a jeex Khalifa Sall ne dafa war a jeex te loolee askanu Sénégal ñoo ko war a fajal seen bopp est-ce que nag ko war a ci réew mi neex defa Khalifa Sall ne sunu avenir moo ne coalition Yewwi Askan Wi tey de tout dafa aj nooy gi yéen kaay gi di la vrai journal nee na l'heure est grave impasse politique politique bi jamono ci demul ci nga dikkul mbay laar nee ma dafa tëgg témbe yéen kaay gi di réew mi quotidien ci xalima ak Assane Samba nee na campagne électorale bi jamono ci commencé na dañu ko anticiper yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na campagne électorale élection député yi 10 juillet fukki fan ci weeru la war a commencé waaye jamono ci mën nañoo wax ne pouvoir bi ak opposition bi commencé nañ campagne électorale bi dañu ko anticiper yéen kaay gi di li quotidien nee na tension bi tension pression bi jamono ji bëri na lool ci élection yi ak seegula yéene kaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa bugaan gi tane nee na Macky Sall bu ñu waxantee dëgg Macky Sall dictateur la te nag Sénégal jafe yi nga xamante ni jamono ji moom lay dundoo Macky Sall moo ci dugal Sénégal te nag giraawaal yi bu amee ci réew mi bu mu bett kenn Ousmane Sonko ne jamono ji xeex bi commencé na ndax nag Macky Sall bu ci waxul ñetteelu mandat la bëgg a def ci bopp réew Sénégal njiitul Pastef nee na xeex bi commencé na journal bii di na ñi nga pare na ñu nag ngir guerre pare na ñu ngir jàmmarloo ak Macky Sall Yewwi Askan Wi pare nañu ngir defante ak Benno Bokk Yaakaar Serigne Bassirou Gueye mi nga xam ne ay jamono moo fi nekkoon procureur Serigne Bassirou Gueye moomee la Macky Sall bëgg a jël yóbbu ko conseil constitutionnel su ko defee Macky Sall bu fa demee nag Serigne Bassirou Gueye daal di koy valider man mandat loole nag ngir nag bañ mu am jamono ji la fa daal di jota ngir ñu jàmmarloo ak Macky Sall kàddu yu Ousmane Sonko la yéen a kaay gii de la sax xëy duñu Sénégal ma ngi ngi jayeex-jayeexi Sénégal ngi jayeex-jayeex yéen kaay gii di alerte nee nag jàppante bi maanaam jàmmarlo bi defante bi mënut a ñàkk maanaam diggante pouvoir ak opposition bi ci mbeddi ndakaaru njaay ci mbeddi ndakaaru njaay jàppante mënut a ñàkk ma ne la c'est inévitable yéen kaay gi nee na nag tey ji la manifestation bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi bëgg nañu koo amal Macky Sall nee nañ na réew mi Macky Sall ma nga Paris ma nga sa diwaanu Paris la France yéen kaay gi gi de Les Échos nee na un mercredi de tous les dangers yéen a kaay gi de nag marche bi autorisé nañ ko alhamdulilah préfet bu Ndakaaru daan nay autorisé li nga xam ne mooy marche coalition Yewwi Askan Wi tey jii Khalifa Ababacar Sall ak Déthié Fall nee na ñu nag ñoo ngi woo mbooleem askanu Sénégal ngir nag ñu daal di génn manifester wan Macky Sall sunu naqar wan ma Sall na ko moomoo réew ma yéen a kaay gi de Direct News bàyyi mbir moomee wax nag ci ab scandale na waar génn maara di tali Mame Boye Diao directeur des domaines ak Lamine Dieng mi nga xam ne mooy directeur général bu IPRES lañ si joxar bi baaraamu tuuma yéen kay gi di réew mi quotidien ñu koy fekk fa maître ma soxna kana daat nay wax ne yokk gi nga xam ne yokk nañ ko essence bi gouvernement bu Sénégal tegu ko fenn ma ne loolu c'est illégal ndax nag dafa am loo xam ne moom la loi bi waxa loi 2021 25 du 12 avril 2021 dafa wax nag ne balaa ab yokku di am war naa nag am am ndaje ak waxtaan seen diggante ak conseil national de la consommation waaye nag loole dara amu ci moo tax moom avocat bi nee na nag lii violation la te askan wi waruñu koo nangoo yéen kaay gi di bés bi xëy dañu xibaar naa ñu lu jëm ci wàllu wér gi yaram gi jamono ji mën nañoo wax ne nag ci tagga témba la jëm ndax nag fédération bi nga xam ne moo am bu syndicat yi danañu amal ñetti fan yoo xam ne dañu koy gréwa yéen kaay gi di estat nee na Sénégal dafa rëcc ci démb ci match bi doon dox digganteem ak Rwanda Sénégal 1-0 la ko dugal ci bi ñu demee ba fin temps